salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu santee yàlla subhanahu wa taala julli ci sangu-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaan mbégte mu yaatu di ñëwaat di ànd ak yéen ci seen émission dabu wolof niñ ko baax a defee fii ci seen bi nga xamante ni mooy chaîne bi nga xamante ni mooy saaw ceeñeeri mbaax ci àddina bi muy Gindigal TV la lumière du savoir ñuy nuyu bu baax ki nga xam ne mooy njiit li di Serigne Modou Gueye Gandigal moom mi nga xamante ni moo ngi liggéey liggéey bu am doole ci réew mi ci wàllu faj la médecine par les plantes ci cabinet Aram Diaba ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëñ Mbacke mi nga xamante ni moom mooy suñu technicien ak euh, Roqya Gakou ak mboolem journaliste ak euh, ñi nga xam ne ñoo di ay animateur ak ay animatrice yi nga xam ne ñoo nekk ci seen bi nga xam ne moom moo di Gindigal TV ñu amaan mbégte ñëw di wéyal seen émission Dabu Wolof ni ngeen ko baaxee dégle ci émission yi weesu nga xamante ni ñu ngi woon ci lenn ci ay baat yoo xamante ni ñu ngi ko doon firi di firi ay baat di ci tekki ay wax di indiwaat lëgg-lëggi wolof yi nga xamante ni mag ñi démb ak bërki démb ñu ngi ko yoroon daan ko wax ci làkk yi mu daan jur mbaax di defar di gindee di jàjji di jubbanti di baaxal di jagal macha allahu rabbi ndax ni ma leen koy faral di waxee ku xeeb saw làkk yokk sa ñàkk te amul menn réew moo xam ne ci àddina mën ngay ñolax jëm ca kaw ca kaw a kaw lu dul ne ci sa aw làkk moom mooy doon sa cëslaay li nga xamante ni mooy doon gog yi nga xamante ni ci ngay yéege ba mën a egg ca njombaxtal ya macha allah rabi tey ñu ñëwaat ci beneen baat boo xamante ni ni ma leen ko waxee woon ci njëlbeen ci baat yi nga xamante ni waroon nañ ko waxtaanee tey ñu ñëw ci baatu gëstu baatu gëstu lan war a waxtaane ana lan mooy gëstu baatu gëstu nga mën ci dégg baatu gës gës bu ñu nee gës nag lenn ci rab yi nga xam ne walla mala walla njanaaw yi nga xamante ni ñu ngi ci àddina bi yàlla sàkk leen suñ borom euh, am na ci ñoo xamante ni dañuy gës bi nga xamante ni gën nañ ci ko ràññee ci wàllu gës nga xam ne dañoo dëkk moom ci biir kër yi mu di ginaar ginaar suñu ko waxee Euh, xel dem ci gës ndax ku ne xam na ne euh, la yàlla wax ci alxuraan ne amut lenn loo xamante ni mu ngi dukkat ci kaw suuf lu dul ne man sunu boroom man maa yor wër wërsëgam nga gis ginaar wër wërsëgam yi nga xamante ni mi ngi koy lekk ci añ reer ndekki yàlla mu ngi ko koy jaaralale ci ni mu koy wutee muy gës boo demee ci àll bi boo demee ci kër yi bu bët set jotee ba nu ubbi gunu yi dangay gis ginaar yi daw génn ci ëtt bi kenn ku ci nekk daw aw fi béréb rawatina fi nga xamante ni bu njëkk fa lañ daan soqe njël fa lañ daan wale njël bu ko defee dugub ja fa daan tuuru noonu mu daan suuloo dangay gis ginaar yi di gës di gës ak seeni tànk mbaa ñuy gës ak seenu sàll ngir dugub ji nga xamante ni moom moo suulu ca suuf sa ñu mën koy génne di for fepp ya mu nekk seen dund baatu gës boobu nag moom la ñu jël yokk ci tu muy gëstu gëstu nga xam ne kon bu ko nit dee def dafay am loo xamante ni mu ngi koy seet wala mu bëgg koo gis mu nekk loo xamante ni njariñ lay doon ci moom mu nekk loo xamante ni daf koy jëfandikoo mu war koy jural njariñ lu toll ni li lekk di jural nit wala aw rab walla mala ngir mu mën a dund nga gis ne kon gëstu lu ama ama ama ama am solo la ci dundu doomu adama waaye lu am solo la ci nekkinu doomu adama nga gis ne euh, gës bu ko ginaar dee def daf ci amee lu mu lekk ba regg muy ñu ne ginaar gi lu muy def ñu ne ginaar bi dafay gëstu ngir am loo xamante ni loolu la mën a lekk kon ndekete jëf ji muy jëf moo tudd gës waaye bu koy def ba nga xamante ni dina ci am loo xamante ni moom lay jëfandikoo kon dañ naan mu ngi gëstu ndax mën naa gës fii du gis dara mu gës fële du gis dara waaye mu gësaat feneen daal di am lu mu gis kon gës googu muy gës fu ne mu gës fa loolu moo tudd gëstu nga xam ne ginaar macha allah rabi ci ni ko yàlla bindee nga xamante nii bu njëkk mag ñi buñ masaan a am ak séq euh, bu fajaree moo leen daan wax fajar jot na ci ne mu daan sabe nga gis ginaar bu masaan a am ay cuuj bu céeli masaan a naaw wala baaxoñ bëgg a këf ay cuujam nga gis am na nu leen daan woowee bu ko defee noonu mu mu leen daan woowee tuuj bi fu mu mën a nekk ci àdduna bu déggee yaay ji sab sabin woowu rek day xam ne yaa yaay jaa ngi leen di woo nga gis xereñ gi suñ borom xereñ ci wàllu rat yi ak mala yi kenn ku ci nekk ni ngay communiquer ak say njaboot waaye ni niñ communiquer ci seen biir nga xam ne communication lu am doole la ci lépp loo gis rek dafay am communication nga gis bokkul ak ginaar su fekkente ni gis na ci àll bi wala ci weti kër yi wala ci poot bi lu mel ni eh, ay jaan wala loo xam ne daf ko ragal nga gis am na weneen sabin woo xam ne tamit moom lay sab ngir yëgle ne am na danger boo xamante ni ñu ngi ñëw nga xam ne dafay jenj xam nga moo tax nga dégg wolof wax ko ci léebu wa daan ne jenj ak reeteet feeñal na jaan waaye rayu ko jenj ginaar moo koy def waaye reeteet ay picc ñoo koy def moo tax nga dégg wolof wolof tamit ni mu riche ak gànjar gi nga xam ne moom la làmbool nga xamante ni dafa daan tibb sax ci euh, sabi ginaar yi ak sabi picc yi ak mala yi ak rab yi bi ci tëgg ay euh, léebu yoo xamante ni dafay defar lu bare bare bare bare bare ci jamono nga gis ne kon jenj ak reeteet feeñal na jaan waaye rayu ko nga gis ne kon wolof mu ngi tibbee ci jenj di aw sàppu ginaar di sàpp tibbee ci reeteet di picc euh, sàppu picc di sàpp tëgg ci aw léebu woo xamante ni mën naa defar lu bari ci àddina jeeñ ak reeteet feeñal na ganaar waaye rayu ko Hadj Modou euh, mm, allah waaw da ngay indi ci dabu wolof. Mhm. lu am solo moo tax sax ñu defar la bi. waaw jël leket. Mhm. def ci laaxu fajar wala bu yor-yor. walaay walaay ndeysaan. indi sowu mbaanik. Mhm, ràcc laax bi. walaay walaay jël kook sife def ci cere yi lay. walaay walaay walaay jël wattu di ko sife. waaye auditeurs yëpp ñu rafet rafetlu sa dab wolof mm-hmm, mm-hmm. waaye tey da indi lu am solo lu ñu la bëgg laaj ay laaj yu ndaw rek mm-hmm, ndax da ngaa indi baatu gëstu gëstu njanaaw mën na ko def mala yu gàtt yi mën na ko def waaye nit tamit mën na ko def waaw wax nga ko ci ganaar uh-huh. wax nga ko ci yeneen mala yi jaar day gëstu janax day gëstu boo leen xoolee ci àll bi wax ngay tamit reeteer ak sab mhm, mhm. xam nga ginaar dina reeteet dina sab mhm. bu buy reeteet dafa jàq gis lu mu ragal waaye Ababacar fi xale yi toll tey ci réew mi nga xam ne olof dafa nekk làkku làkku riche am solo buy xamalaat nit ki démbam damay gis ci xale yi journaliste yi Babacar uh-huh. ñuy jël ay baat yoo xam ne dañu koy faral di wax te yow mhm. mi dégg olof wala nga nàmp ko mhm. daf lay war daf lay jaaxal ndax yel muñ jaaduwul ko xale journaliste yooyu jege ñu mel ni yéen ñi nga xam ne surtout maam ngeen mhm. ñu jàngaate ci yéen olof ba bu ñuy def seen journal yi di ko def ci kàllaama kocc ñu def ko ci olof yi leer wala déet ndax jaaduwul macha allahu rabbi muy lu am solo Hadj Modou Gueye nga xamante ni dama doon fàkk yoon wi pour egsi ci euh, nit li nga xamante ni noonu noonu la war a gëstoo rawatina ki nga xamante ni dafay nekk ci béréb bi waxee kaay xam-xam comme ni nga ko waxee muy sunu mbokk saabalkat yi di journaliste euh, macha allah nga xamante ni lépp loo xam ne dañ koy wax ñoom njariñ la war a doon waaye xam-xam la war a doon kon baat bi ñuy waxtaane tey ci ñoom la gën a yelle muy baatu gëstu nga xam ne ni nga ko waxee nit su fekkente nii mu ngi nekk ci bérébu sàkku xam-xam mi ngi nekk ci béréb boo xamante ni dañ fay waxee xam-xam mi ngi nekk ci béréb boo xamante nii njariñ a fay gongi ko jëm ci askan wi kon kooka balaa yëkkati ay kàddoom jëmale ci aw ñoñam war naa fexe ba góor euh, góorgóorlu ba gëstu ba mën a am xam-xam boo xamante ni saa yu ko yebbee jëmale ci aw ñoñam mu doon njariñ ci ñoom kon ndekete gëstu mi ngi gën a am njëriñ dëgg dëgg dëgg ci ñi nga xamante ni dañu nekk ci béréb bi waxukaay yi muy sunu mbokk saabalkat yi mu ñi nga xamante ne nii dañuy yeete mu ñi nga xamante ne yare mu ñi nga xamante ne waare muy kum ci manti doon bala ngaa wax ca fan wa nga xamante ni sam xam-xam fa la màcc jëm ca war ngaa mën a gëstu gëstu bu baax a baax a baax a baax a baax ci kàggu yi nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi woon waaye ci wax yi maam yi nga xamante ni moom lañ fi bàyyi woon muy ay wax yoo xamante ni dafa làmboo njariñ lu yaatoo yaatu te Modou Gueye il faut nu xam ne lu bare bare bare bare ci baat yi nga xam ne ñu ngi koy wax ci tubaab am na ci wolof bu nu gëstoo xam ko njariñal gëstu foofu la nekk bu nu gëstoo rek baat yu bari dañ koy daal di xam ndax euh, mag ñi witaloon nañ ko ay baat journaliste nga xam ne ñu bëri journaliste journaliste la ñuy wax am na ci wolof mooy saabalkat ni ma la koy euh, leerale rek bu njëkk da nga daan dégg mag ñi ne la euh, boo defee aw tojaange wala nga def tas penc mag ñi ne la billaay su ma la jàppee ba bàyyi la doo ko saabal waaw maanaam suñ la jàppee dinañ la dóor duma duma yoo xam ne yow doo ko nettali doo ko saabal nga gis ne kon baatu saabal lu yàgg la ci eh, jamono lu yàgg la ci làkk olof ni ki yeneen i baat yu baree baree bari nga xamante ni xam am nañ ci wolof macha allah kon baatu gëstu mi ngi noonu di baat boo xamante ni li mu làmbool ci njariñ bari na ni ko Modou Gueye waxee nga xam ne lu bari ci mala yi ak ci rab yi ak ci njanaw yi bala ñoo am lu ñu lekk dañuy gëstu ci gëstu gi ñuy gëstoo ci lañuy ñuy jëlee lu ñu dundee waaye tamit borom xam-xam wala nit koo xamante ni. da ngay yëngatu ci wàllu xam-xam bi yëngatu ci béréb yi nga xam ne ca la ñuy waxee ca la ñuy saawee xam-xam ca la ñuy saawee ay njariñ ci yar ci euh, sunu mboor ci sunu mbatit ci sunuy baax kon day yell ci yow nga nekk koo xamante ni ku ñimee ñimee ñimee gëstu lay doon ngir saa yoo gëstoo la nga xam ne moo cay gongi ko ci xam-xam nga jël ko boo ko wesaaree mu mën a doon njariñ lu yaatoo yaatoo yaatoo macha allah ñuy sant bu baax di gërëm Euh, internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci dabu wolof di leen wax ne euh, képp koo xam ne bëgg nga bokk ci émission bi wala nga indi ci ay ndollent wala nga indi ci leneen loo xamante ni mën na koo jëmale ca kanam di nga nu mën a woo ci numéro téléphone 77 090 21 12 77 090 21 12 bu ko defee ñu bokk ñun ñëpp sottante ay xalaat dollante ay xam-xam ci sunu làkk wu nga xamante ni gànjar ak neen moom la làmbool ngir ñu mën a joñ sunum réew mu jëm ca kanam a kanam a kanam a kanam ci mbaaxu sunu borom nga gis tey décor bu rafet bi nga xam ne Alaaji Modou Gueye Gandigal moo ko indi décor ko muy leket leket nga gis ne am na yuy law am na yoo xamante ni garab la ñuy doon ak li nga xamante ni moo di gàmb bi nga xam ne moom la teg ci kaw ak yeneen i njëfu yoo xamante ni yu am solo am solo la yooyu yëpp dinañ ko indi ci dabu wolof Euh, euh, wax ni nga xamante ni noonu la ko mag ñi daan jëfandikoo ak njëriñ lim làmbool ba ci leket yi nga xam ne am na lenn ci ay gàllaaj yoo xam ne boo koy sangoo leket nga ko war a sangoo ngir gàllaaj ga mën a jur njariñ li nga xamante ni moom nga cay séntu ak yeneen yu baree baree yoo xam ne soo leen ñu toppee ci dabu wolof incha allahu rabi yooyu yëpp dina feeñ ñuy sant di gërëm bu baax euh, sunu baay bu baax boo xamante ni moo nu solal muy baay Demba Keme nekk foofu ci marché Tilène ñu ñaan yàlla guddal fanam yokk terangam moo ñu solal ci mbaxana ci yére bu rafet ak macha allahu rabbi sunu xarit yeeg sunu soppi yëpp sunu yaay Dieynaba Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla yokk terangam di nuyu xarit yi ak soppi yëpp di ñaan yàlla mi dara tawul yàlla na def ci jàmm jàmm ci réew mi ak ci àddina bi yëpp ci dara ñu yonent bi ku xeeb saw làkk yokk sa ñàkk dabu wolof ak mbay Babacar Sène di leen dig daje ci seen beneen émission Dabu Wolof